mbokk internet yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen wax ngeen dal jàmm su Sport 221 kuy gan ci page bi ñu ñaan la nga abonné nga activer cloche bi bu leen ko di fàtte nag di liker vraiment c'est très très important bu leen neexee aussi di bàyyi seen ay commentaires. xibaar yi da ngay tàmbalee kuréel bi ngeen mooy FIFA ñoom ka léegi. voilà autorisé nañ kat championnat yi ak fu ñu mënti nekk voilà ñuy jowante ay match à l'extérieur mooy que kat bu ñu waxoon ne championnat Sénégal bii suñuy ay match mën nañ ko programme foofee ci Mali jàpp leen kat te kuréel bu ci mën liga ñoom sax ñu ci gën a yëngu bu ko defee kat ñu mën a yóbbu seen match yi foofee ci états xam ngeen wàllu mën naa ne mbirum koppar moo waral loolee ci noonee kat kuréel boobee di FIFA léegi kat autorisé na lu nu mel. ñu àddu ci Europe bi nga xam ne jàpp leen beneen kuréel bi nga mooy UEFA xam ngeen ne kat équipe yi nga xam ne daan leen wol wol boog seen ay joueurs 23 lañ woon ci noonu léegi may nañ leen kat ñu sélectionné ba 26 joueurs comme ni nga ko fësalee ci kayitu xibaar yi waaye kat liste yooyee war nañ ko fësal avant le 7 juin ndax Europe bi dafa war a tàmbali le 14 juin pour rappel. waaye foofee ci Allemagne ba ñoo war a dalal xew mi koo kii di Julian Nagelsmann moom dina fësal lisam bi nga xam ne ñoo war a doxal ci Europe boobee 16 mai bu ñu soxandikoo ci kayitu xibaar yi. jawante Ligue des champions yi ci li ngeen moom mooy premier match ci demi-finale yi kon fësal na ñi nga xam ñoo ci gën a ràññee nga xam ne moom mooy Vinicius ginnaaw gi ba mu defee match bu rëy face au moom lañ tànn kan ne moom mooy joueur bi ci gën a xarañ fekkee bi bi ngeen moom lañ gën a ràññee ko taaru na kookee di Leroy Sané bi nga xam ne dugal na ko face au merengue foofa ci Allianz Arena mooy que le but égalisateur jàpp leen bu baax bi boobee kat lañ tabb le prix boobu. ñu desandi ci Real de Madrid bi nga xam ne voilà ñetti événement yii kat ci ñoom la aju jàpp leen ñu gis ki nga xam ne mooy Marco Reus mu remporté li nga ne mooy Ligue des Champions dina ñëwaat ci moom ki nga xam mooy Harry Kane aussi mu remporté raay mu njëkk ci carrière am wala boog Paris Saint-Germain voilà aussi ñoom ñoom ñi ngi daw ci li nga xam ne mooy Ligue des Champions depuis des années ñu génne koppar yu takk aussi ñu mën ko gàddu kon ñetti situation yooy kat ci merengue la aajo bu ñu soxandikoo ci kayitu xibaar yi. ñu utali foofee ci Espagne jàpp leen kii nga xam mooy Isco moom lañ tànn nekkat mooy meilleur joueur du mois d' avril en Liga e-sport moom mi nga xam ne depuis ndorteel som bi nga wane boppam ak club boobee di Real Betis de Youssouf Sabaly ndax tànn nañ ko nekkat moom fois homme du match ci 27 match yi mu doxal en championnat écossais pour rappel amee na gaañu gaañu kookee mooy de la Fuente ñi ngi xaar mu wóolu ko ndax kat mérité ko bu baax a baax. Carlo Ancelotti confirmé ne kii nga xam ne mooy Jude Bellingham voilà amee woon na tawoon nag la semaine dernière. voilà benn virus la amee woon mooy tax Varane nag wérul woon waaye taxul benn yoon dugaloon na ko waaye xam ngeen ne da ko génne woon ci ñaareelu mi bi kookee di Ancelotti en conférence bi laata seen joor de compte kat yi sa samedi lañ ko war amal mi ngi confirmé ne kii mooy xam dëggu moom kat di na titulaire de même que certain Thibaut Courtois bi nga xam ne aussi comme ni ngeen ko xamee gaañu gaañu bu yàgg moo ko tëraloon waaye dina ñëwaat ci jonte ñu àddu ci Kylian Mbappé bi am demam foofee ci Real de Madrid lu leer la ci noonu ñu ngi fësal ne moom jënd na foofee ci Espagne benn kër bi nga xam ne Sergio Ramos sax moo fa dëkkoon ñu koy estimé à 18 millions d'euros kan la l'international français boobay teg ci table ñu soxna ko ci Voz. Nacho léegi leer na dina quitté bu baax club bi mooy Real de Madrid voilà dina libre tout contrat. enfin wala bokk au mois de juin Fabrizio Romano moo fësalal xibaat boobee ek fësaloon naa ne ki ngeen mooy Xabi Alonso noppee naa ko dalal bu ko defee kat mu yokku leen doole jiwante Ligue des champions yu la saison prochaine. Real de Madrid amal nañ contact ak River Plate club argentin boobee bu ko defee kat ñu mën a jënd kooke di Franco Mastatiano comme ni ma ko fësalee woon benn milieu de terrain la jàpp leen bu baax nag.

mi ngi ci tabletu club bu ci Paris Saint-Germain naam wala bok benn waaye Barça ñoo ci gën a xuus pour mën a dalal doomu portugais boobee ñu utali foofee ci Angleterre. ki ñuy tàmbalee mooy Phil Foden bi nga xam ne moom lañ tàbb ne moom meilleur joueur de l'année joueur bi gën xarañ ci at bi ci saison bu English Premier League bi bu ñu soxandikoo ci këru xibaar yi moom moom mooy première ki nga moom mooy Declan Rice mooy deuxième Rodri mooy troisième. Arteta mi ngi mi ngi dëggal ne kii nga xam ne mooy ndaw néerlandais benn moom mooy Timba moom léegi voilà dina ñëw à 100 pour cent nag seen équipe ñëw doxal ginaaw gi gaañu gaañu moo ko tëraloon. et que Arsenal mi ngi ci yoonu nag amal déggoo ak benn jeune crack bi nga mi ngi doxal foofee ci Brésil mu yoo ci Estevão Willian. ñu ngi fësal ne jàpp leen bu baax nag ñu ngi koy bàyyi xel wala boo ko ñu ngi wéyale waxtaan ak club boobee di Palmeiras waaye du ñoom donc club benn mooy Chelsea aussi voilà bëgg nañ ko waaye que di close koy xayma ak 45 millions d'euros et que ñu ngi fësal ne Barça bi nga mi ngi woon ci yoon bu ko defee ñu mën ko dalal waaye kat génn nañ seen loxo ba mu set wicc ci kooke ñuy dëppale Messinho Willian Barça ka leen dal ci kooke di Victor Roque lañuy bañ bu dalal la ci beneen talent brésilien Diario Sport moo fësal xibaar boobee. Liverpool contact ni Real Sociedad wala boog Liverpool amal na contact le biir mooy Real Sociedad bu ko defee kat ñu mën a jënd kookee di kii boobee mi ngi wane boppam. coow li doon ci Jurgen Klopp ak kookee di Mo Salah voilà nag technicien allemand léegi voilà nag mën naa ne lépp teg nañ ko suuf léegi jàmm dox na seen diggante ci ëllëg Mo mu ne nag mënu cee wax dara naam club bi am na. mbébét garde ko waaye li leer ba leer mooy que voilà club bi nag buñ ci waree wax ñoom dina ci waxtaanal. ak doomu égyptien boobee Roberto De Zerbi mu ne balaa nag doon na neex lool mu desandi foofee ca Brighton ndax bëgg na lool joueur yi ak ville bi club yi ak fan yi waaye li leer ba leer mooy ko. kii kàddu mooy wax mu ne voilà wax na fans yi ak ñi nga xam ñooy safa Brighton ci benn réunion bi amal nañ ko seen diggante mu ne kontaan ci club boobee ba tax na nee na du changé benn club kon dafay desandi kàddu wuy liggéey bi muy amal Sky Sport moo fësal xibaar boobee. ki nga xam ne mooy Eric Ten Hag ci benn waxtaan bu yaa mu ne supposé ne kat moom mooy doon manager bu Manchester United kon xaarul benn ñoon ñu naan dañ koy dàq ndax moom dafa signé benn contrat à long terme kon waragul jeex fii ndax bés bu ñu ko dàqee contrat long terme boobu mooy que contrat bu yàgg la dinañ ko fay liñ ko desal ci ay at ci noonee balaa buñ moyul buñ moyul kat dinañu wéy lekk moom. ci mercato yi génn mu ne kat voilà li nga xam ne mébétoon na ko wax ko club boobee ñu ne dëpp lay jaabu rouge. mooy que bëggoon na signeel kookee di Harry Kane ak De Jong waaye loolee mujjul amtu kon li nga xam ne moom la def mooy mu recruter le jeune danois bi mooy Özlum bi nga xam ne balaa ba fay signé nag ci saison wala boog ci club bu ba woon dugaloon na plus de trente buts. kookee di Erik ten Hag dina fa desandi waaye ki nga xam ne mi ngi wane boppam foofee ci Dortmund bi nga xam ne moom mooy l'anglais benn mooy Jadon Sancho. moom nag bëggul benn yoon dellu fa fecce Manchester United bu fekkee dafay dellu di fa fekk waat koo kii di Héringsteen kat bi nga ñoom seen diggante rataxul noonee ci noonee nag dootu mun voilà ñu ngi ñu ngi càmbar ay mbiram xool ba xam voilà nag eh, waa Manchester United dañ leen ko mën a abal et que ñu dugal ci benn option de d'achat boo ko defee lépp yemb balaa nag ñu amal déggoo bés bu fa bés bu fa doxalee benn saison ñu abaleen ko maanaam tey buñ ci dugaloon cent franc ñu teg ko kat jënd ko mu desandi fa waaye loolee yëpp ci ay waxtaan lay aju. te technicien écossais bi nga xam ne mooy David Moyes leer na nañ ne xam Ham nag dañoo am bébé taqaliku ak moom ginnaaw gi li wane ci saison bi kontaan nañ ci moom Fabrizio Romano moo fa sa xibaar boobee kii nga xam ne voilà nag doon nañ ko noonu su fa ci AC Milan waaye supporteru suñu ñoo ne déet bëgguñu ko mooy Julen gi kon moom benn candidat la voilà nag boo ko defee kat mu mën a uutu kookee di Moyes. comme ni ma ko fasile woon doomu italien benn mooy toll nii dafa laale ci wàllum carte xaalis équipe bam boobee di Newcastle mu muyisee seen jon dañ doon amal contre West Ham ne leen bu baax nag fédération anglaise de wala boog ñoo xibaar boobee ci noone kii nga xam ne mooy coach am kontaan na lool nag ginnaaw bi ñu fësalee ne bi nga xam ne teg nañ ko ko app dañ koy respecté kon moom dina ñëwaat le 27 août ndax yokk luñ ko ci dara. ñu bàyyi Angleterre utali foofee ca foofee ca Allemagne ek nag li gën a fës ci këyitu xibaar yi mooy que kookee di Marco Reus dafa jël ndogal ne dafay quitter Borussia Dortmund en tant que agent libre balaa nag ginnaaw ba mu fa jongante lu mat fukki at ak ñaar ndax contrat dafa war a jeex juin 2024 kon ci noonee balaa dañ ko prolongé ndogal bi jël nañ ko. moom John dana fa 400 matchs comme ni nga ko fasalee mu dugal 163 bi 168 bi 128 passes décisives mu jël fa ñaari coupe d'Allemagne 3 super coupe d'Allemagne comme ni ko fasalee. Bayer Leverkusen bi nga xam ne ci saison bi kenn nu leen daan ci noonee voilà 6 matchs dong moo des kat bu ko defee ñu boucler saison bi jeexal ko avec 53 matchs sans défaite. kon loolee bu nga ko defee dina mucc ayib lool ek ki ngeen mooy Thomas Tuchel ci ëllëgam comme ni ko Xavi defee ndax Xavi dafa wax waxee ne kat bu saison bi jeexee dana fëkkate waaye xam ngeen ne ci ci diggante bi dafa sans avis mu ne est-ce que loolee mën a nekk mu ne li leer ba leer mooy que kat moom ak moom ak dirigeant yi Bavarois amal nañ déggoo et que voilà c'est maintenu accord boobee am na bu jeexee kat dafay quitter foofee ca Bayern Idrissa Gana Gueye joué ne 150e match am en Premier League seen jonte bu ñu doon amal contre Luton Town bém dañuy xëcc pour bañ a wàcc waaye bu fekkee club bu Gana boobee ñoom voilà ils sont sauvés ndax dinañ desandi ci English Premier League bi dañuy mujj tempo nag un but partout Gana ba ci ñaareelu métang bi mu may place kon kookee di l'international sénégalais fait partie des joueurs les plus capés en Angleterre avec 150 match ek nag lan mooy waral balaa nag mauvaise performance yi Tottenham mi ngi koy passé ndax trois match trois de rang comme ni nga ko fësalee waaye une chose une chose est sûre mooy que ñoom am nañ match de retard bien bi ñu ko dóoree dina ñëw à quatre di bi nga xam ne mooy place qualificative pour Ligue des Champions waaye bu ñu remontada wala ba bu rawul Aston Villa kat dinañ doxal ci li nga xam ne. moom mooy Europa League bi bu fekkee ki nga xam ne mooy Pape Matar Sarr moom mu ngi safa bu baax kooku dina joobi comme ni nga gisee nataal boobee ci salle d'entraînement boobu bi foofee ko taf ek nag RC Lens de Nampalys Mendy ñoom dinañ disputer une compétition européenne la saison prochaine ginnaaw gi ba ñu daanee Lorient ñaari bal ci dara auteur d'une belle performance comme ni ma ko fasalee Nampalys Mendy voilà et passeur sur le deuxième but des Lensois voilà nag top performance masterclass dëgg la wone waaye ki ngeen mooy partire Patrick Vampiris moom nag euh, voilà xaw na ko critique mu ne nag Nampalys Mendy dafa war a changer sa façon de jouer tey jii seen machine bi ñu amal naam kat coach bi voilà nag mi ngi am wóolute ci moom et que loolee dëgg la naam Venezuela bi il est bon défensivement waaye mu ne football moderne li muy laaj mooy que voilà nag nga yóbbu bëri en avant. ek voilà fofé dong lay xare Nampalys Mendy kon mom xalaatam dong la waaye man Nampalys Mendy say bu doxalee surtout avec les Lions de la Teranga un jour qui ne déçoit jamais malheureusement pour l'Orient de Bamba Dieng Formose Mendy si matchs de rang si défaite en Ligue kon ñom ñi ngi tout droit vers Ligue 2 mooy que dañeen dara relégué et que sans penalty ki ngeen moy Nicolas Jackson voilà dana égale ko kii di Cole Palmer ndax Cole Palmer penalty yi dong mooy tax voilà mu ëppale ki nga xam mooy Nicolas Jackson waaye Nicolas Jackson ñu bëri nee nañ kat voilà nag li muy bu ko dugaloon waxuma la sax di égale ko kii di Cole Palmer waaye ñoom yéen nga laaj ñëpp lay raw waaye voilà c'est le football waaye une saison nga dugal 11 bi en Premier League tulu ndaw et que un début vraiment nag ça promet pour l'international sénégalais bi kon gaa ñëmale foofa xibaar ji leen jaajëfal ba beneen yoon sur Sport 221.